waaw kii mooy seex Muhammad wul daddu wul daddu borom xam-xam la bu mauritanien ku siiw ci jamono ji ñu toll ci monde islamique bépp moom ak Xardaawi ña mooy ñi gën a siiw ci daanaka ci borom xam-xam yi jamono ji euh, mauritanien la dañ ko invité woon ci télé Émirat la fook muy waxtaan ci lislaam di waxtaan ci jaamu yàlla ak ni mën a def nit ba mu sori di neexlu neexteeg jaamu yàlla bi mu ciy joxe misaal indi ci sëriñ Tuuba comme misaal loolu ci la waxe ne am na ci Sénégal benn góor ci sëriñ si mu ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba melokaanu shakluhu zinji mooy dafa yor nit ku ñuul la waaye dafa bokkoon ci ab abdaal yi dafa bëggoon julli lool moom nag tubaab yi dañ ko doon xeex lor nañ ko lor gune xeetu lor gune exilé ko jële ko ci barab yu bari yóbbu ko tuxal rek am na kenn ci suñ sëriñ si fii moo fa yebale ngir ñu indil ko ko ngir mu mën koo teqaleeg tubaab yi nee na dafa yebaloon menn mbooloo ñu indil ko ko bi muy tukki nag ànd ñooñu jóge Sénégal jëm Mauritanie loolu jamono yi nawet la woon la wax nee na saa su gisee benn suuf su naat sëñ bi danaan subhanallah suuf sii dey dara gënta yàllu ñu sujjootal fi yàlla bu ko defee mu wàcc sujjoot fa bu fa sujjootee nag dafay toog ci benn sujjoot bi ay waxtu ñoo ñooñu toog di ko xaar mu ne li ci gën a yéeme sëriñ bi bi muy wàcc génn àdduna ci sujjoot la ko fekk dafa sujjoot ba génn àdduna te kenn yéegu ko sax ne génn àdduna ndax nim ko baaxoo waane def rek di sujjóot loolu nim ko baaxoon def mu ne yonente yàlla yi fi jiitu woon tamit noonu lañ meloon mu indi ci misaal suleymaan yene jinne yi dañ ko daan gis mo taxaw di julli di ci yàgg lool ci taxawaay boobu nee na bi mu faatoo te fekk mu taxaw di julli jinne yi sax xamuñu ndax faatu na nee na ci noonu toog na fa atum yàlla taxaw noonu sukkandiku ci ab dokkam waaye ñoom dañoo foog ne rek dafa faatu loolu ki koy laaj moo ko laaj loolu mu ne ko ay na am waaw ci noonu ki koy journaliste bi laajaat ko ne ko xissatu Ubbaad ibn Bishr bu siiw boobu bi ko tawatam jooju dalee ak xissatu Buxaari yi bi ko yamb bi màttee te yëgu ko ndax loolu mën nañ koo jàppee ci màndargam bànneexu ci julli maanaam ne boo dee bu julli gi neexee ci ba nga ci bànneexu da ngay dem ba fàddu ba doo yëgate ko dara ci li la wër Cheikh Dado tontu na ne waaw kuy ku dem ba nuur ci jaamu yàlla ne li ci ëpp sa yëg-yëgu yaram day fàddu bu ko defee sa ruu gën a amaat doole day ëpp doole sa yaram booba ndax nit mu ngi ko composé yow ci ruuw ak xel ak yaram yaram nag moo ëpp doole mooy lii ëpp doole ñaare ci dunduk gi ñu nekk waaye nit ki saa su yittewoo jaamu yàlla mu yittewoo ko def ko yitteem dëgg-dëgg bu yàggee ruwam day not yaramam Euh, ruug yi bu demee ba euh, nit ki néewal lekk day ak di jaamu yàlla day mujj yaram wi ruug yi ëpp doole yaram wi moo tax buy jaamu yàlla mën naa dem ba dootu yëgati li ko wër dootu nit ñi bu ñuy wax du ko dégg euh, ba ba mu àgg ci daraja yu kawe sax nettali ji xissa ibnu Zubair doomi ibnu Zubair nee na biñ bëggee dagg tànk bi docteur yi dañ ne nañ bàyyi ba muy julli ñu ñëw bi muy julli ñu jël ab si dagg tànk bi jël pétrole wala lu mel ne godron gannaaw bi ñu def ko ci tànk bi takk ko ci lëmas ko ci mu julli ba àggal daal ne waaw man xet gi may xeeñ nag xeetu gadron gi nag ñu ne ko ah bi sa tank bi da dagg nañ ko bi ngay julli sa doom it dee na faatu na mu daal di tudd yàlla natt bi daanaka yëgu ko ci biir loolu bi mu ko waxee nettali xisa Abdullah ibn Zubayr boobu noppi nee na Euh, journaliste bi da koo laaj ne ko waa euh, est ce que yii nag buñ ko dee jàng ci téere rek est que nit ñi duñ ne lii ci téere yi la rek ay xissa la yoo xamee ne dañ koo fabriqué rek ci téere waaye ndax yow est ce que ci réalité sa dund euh, quotidien sa li ngay dund ndax gis nga ci lu xaw a mën a lool mu ne ko waaw waaw Mauritanie maanaam gis nañ ci koor gi rek ay mag ñoo xamee ne daanaka duñ lekk te gis nañ bu koor gi ñëwee ba ñuy naafile waa ji day naafile ay isib yu bare bare bare bu noppee ñoom dañuy mel ne yéegaguñ tàmbaleeguñ sax dañ naan ko waaye waaye lii gàtt na di teg ñoo yokkal loolu gis nañ ko loolu ay ëppee doole day dem ba yaram bi dootu yéegati yooyu yëpp daa ci indiwaat misaal benn góor gu nekk Mauritanie ku tudd Cheikh Mahfouf Cheikh Mahfouf mu ne am na téeméeri at ak teg lu bari waaye dem na daanaka mënatul dara waaye saa suñ koy julli dañ koy jëkkati yëkkat yëkkati ba teg ba teg ci kaw ci kanamu mihrab bi saa suñ ko fa tegee rek ba mu tàmbale moom boobaa kenn doodu ko téye ci ñëpp dañ koy bàyyi mu mu ànd ak kattan gu yéeme bu jullee ba àggal rek ba sëlmal dootu daanu dootu mënal ci dara te noonu mu mel ci alxu noonu mel ci julli noonu la mel ci alxuraan saa su déggee alxuraan day ëppaat doole nee nag moo tax ñi bëgg mu jàngal leen bu ñëwee dañ naan ko fii rek mu tàmbal ne mas nañ koo fekk bis muy tari alxuraan ba egsi ci wala xad wasalna la qawla laallahum yatadakkaruun ku ñëw daal dina ko dama bëgg a jàngal moom mu tàmbale jàngal jàngal jàngal ba àggal bi mu waa ji àggale bay dem rek ma dégg ko nee na mu tàmbalee ne alladina aatinaahum kitaab min qablihum bihi yuminuun mooy fa mu yemoon laa yow ci topp la ci topp rek continué di tari kon loolu mayu yàlla la boo xamee ne nit ki bu tàggatoo ci yàlla bu yàggee dootu yéegati leneen lu dul yàlla da ngay kattan kàttan gu yéeme yéeme asalaamaaleykum wa rahmatullah